ñëw jàkkaarloo ak yéen ci seen émission spéciale tabaski ñëw seet si góoru yàlla gu màgg di mu xaw damu Cheikh Mouhamadul Haadi di borom xam-xam di borom jikko ju sell macha allah donc di Cheikh Ibrahima Mbaye fii ci Santhi Mamour Ndoumbé donc Cheikh Ibrahima dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk PMTV ci seen émission spéciale tabaski. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin seydina muhammadin wa alihi wa ashaabi tayyibina tahirin mbokki julli di tedd yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentaam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu képp koo xamee mu ngi ci diggante góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu mbooleem sunu waa dëkk di jiital ci nuyoo boobu sunu imaamu dëkk muy imaam alxaaji njaay di nuyu mbooleem waa dëkk bi yëpp ci diggante góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu timit sunu jëwrin ji di Cheikh Modou Xaali di ñaan yàlla may ko fan bu jaay rasulillah sallallahu alayhi wa di siyaare bu baax tamit sunu sëriñ yi euh, ñoom sax lañ waroon a jiital muy waa na euh, di jiital ci nuyoo boobu xalifa bu tedd ba di bàyyi seex di ñaan na yàlla yàggal ko fi ko defee ra mu nayo nuyoo bi ci mbooleem sëriñ ci yépp di nayo timit ki nga xamé moy sun wasila Cheikh Mouhamadul hadi Niass di ñaan yalla yagal taxawayam yalla sotal ay mbébétam yépp ba projet yi mbébét ci diiné ji lepp yalla man ko ko sotalal inshallah taala. di fatali rek ne mom jëwrin la ci sëñ hadi Niass di euh, muqaddamu mam euh, Cheikh Mouhamadul Hadi, mu samp ko fee ca moo yor daara ja taxawu jumaa ja di yaatal tarixa bi di am liggéey liggéey bu am solo ci tund wi di borom xam-xam waaye nag borom xam-xam bu wàcce boppam moom nëbbatu lay def waaye dafa fees dell ak xam-xam waaye nag dafa fees dell tamit ak willaaya donc di fàttali mbokk internet yi yéen ci euh, seen émission euh, spéciale tabaski ñu ànd ci ak Cheikh Ibrahima Mbaye donc Cheikh Ibrahima dañuy dugg ci waxtaan wi dañuy ñëw rek comme que spéciale tabaski la ñuy wax te ñëpp xam nañ la ci maam xalifa Niass donc ñëpp xam nañ ne maam xalifa moom euh, boo ci wax moom maanaam sa dënn sax dina jóg sa xool sax dina tooy donc nga ñëwal ñu ci maam Khalifa ak jamono solution yan la joxe ci jamono ak jamono fu mu toll nii yaakaar naa ne maam xalifa rek moo ñu mën a jox solution wu jamono nga dikkal ñu ci euh, bismillah. Jéy dama koy faral di wax lu bari ci samay waxtaan di wax ne Sénégal de kenn ëpp ñu sens. waaye tamit kenn gënuñoo ñàkk sens ndax jëmm ji ñuy yàlla jagleel muy maam xalifa ñas loolu dara gënu ko nekk sens waaye réeree gi ñu ko réeree dara gënu koo nekk ñàkk sens maanaam lii xale yi wax maanaam mbir mi maa ko téye sama loxo maam xalifa sirub xilaafa ci euh, tariqa tijaan maam Khalifa ko téye ci loxoom. loolu moom lu neex a wax la fii Sénégal te lu neex a dégg la ndax duñu ko sos dañ koy teg ci loo xam ne ku ko dégg rek xam ne maam xalifa moo yor sirub xilaafa ci tariqa ya ndax maanaam góor yàlla yi fi nekkoon yëpp maanaam seede nañ loolu ci moom tax ñaari heure bu problème jugee ci àdduna bi rek góor yàlla goo mën a seeti ci jamono ñu ñu bokkoon moom jamono benn baat lañ lay wax loolu xalifa rek moo ñu ci doy kon Sénégal réeré gi ñu réeré maam xalifa loolu ñàkk sens la ndax dama koy faral di wax lu bëree baree bëri maanaam sedd na Seex ci dundam faloon na xalifaam avant muy dem yonent tamit ci dundam daan nañ wax ne Aboubacar moo gën ci saaba yi mu di ko dégg kon moom faloon na xalifaam avant muy dem waaye gis nga naka noonu noonu la maalaaji faleexoon maam xalifa diira fukki at di dund moom wan ko na ko yaay def yaay dindi lépp yow la te maalaaji dafa ñaanaloon maam xalifa ñaan gu rëy rëy rëy noonu noonu yow sama borom yàlla boo dañ mukk di yégee maam xalifa ay maqaama yu kawe ba buftu wa di maanaam loolu nag day feeñ toujours ah, bu situation amee ci àdduna bi ndax maam xalifa damay faral di wax ne lépp lu ñuy nattee sëriñ boo ñëwee ci maam xalifa daf koo desal sëriñ benn ñu ne dafa am wilaaya wala ñu ne dafa am ijaaba walla boog ñu ne dafa am xam-xam wala boog ñu ne dafa am ay maqaama yu kawe maanaam moom avant muy wax sax moom mooy kan xoolal li nit ñi seede ci ay xeeti maqaamaam xoolal li nit ñi seede ci xeetu xam-xam yi rafet yi mu am xoolal li nit ñi seede ci wàllum wilaaya xoolal li nit ñi seede ci moom ci wàllum lijaaba ñaan gu nangu moom boo bëggee xam ndax maam xalifa mënoon na ko déet laajal ñi fi nekkoon tey wut mbiram nguur ci jamono coow lu rëy mas fay am ba nit ñi di wax naan di way falu di way falu mu ne ah la ma dégg de ak yéen li ngeen di wax du benn waaye gis nga lam waxoon loolee noona mooy li am. jëlale naa moom nekk gi mu nekk wàlliyu wala xutbu gi mu nekk gi mu nekk xutbu mais ci ku kuñ laan laam laamee sax ndax kii wàlliyu la am kii du wàlliyu maanaam maam xalifa lañ ñëw laaj ci ko. ba tax benn bés ñu ne mas ñoo ñëw laaj ci ko ne ko diw moom est-ce que wàlliyu la ah mbiram yi doy na waar maam Khalifa fekk boobu mu ngi jàngale ci mbaar mi mu téen ba ci yàgg mu sëgg lu yàgg ne leen xaa ah, turam fi nag ci wàllu yàlla yi ci la bokk de turam fi kon moom jëleen na boppam mais wàllu yi nga xamee ñoom lañ doon wax di laam-laamee ndax wàll yu la ñu am déet moom moo laan taxaw ne kii wàllu yu la ku wax ne kii wàllu yu la ba léegi nii njabootam dañ koy dañ ni topp di xam ne kii wàllu yu la waaye ku mas a waxaat tamit ne kii du wàllu yu mujj du baax kon maam Khalifa li ñuy wax li xale yi di faral di wax mbir maa ko téye sama loxo maanaam sirub xilaafa maam Khalifa téye ci loxo loolu ko ndax boo seetloo ay mbiram moom maam Khalifa boo seetloo ay mbiram ni mu demee rek da xam ne sirub xilaafa moom moom moo ko yor ndax ku toll ne Maalaaj Abdoulaye Niass fi mu jaar ci lislaam ci takk xare fi mu jaar ci lislaam ci jàngal ay nit fu jaar ci lislaam maanaam ci defar ay nit bu mënee taxaw ne kii mooy sama xalifa diirëb lu ma fukki at mu nekkaat ak moom kooku du caaxaan doyoon na rek benn karaama ci maam xalifa boo xamee nit ñëpp war nañoo xam ne kii moo téye sirub xilaafa te mooy borom jamono yëpp mën de gisaguma ci wàll yi bu ñu wax ni maanaam commencé na maanaam mën a wax loo xamee benn borom xam-xam mënu koo dindi ci àdduna te booba cinq ans la am ku dul maam rek lañ mën a wax ne moom moo am cinq ans bind way woo xamee maanaam borom xam-xam yi munuñ koo corriger ci wàllu ni mu ko ràbbee borom xam-xam yi munuñ koo corriger ci wàllu haarut borom xam-xam yi munuñ koo corriger ci wàllu naxwu borom xam-xam yi munuñ koo corriger ci wàllu balaax te attention dama koy faral di wax moom Khalifa dafa mën a woy ba maanaam moom wayam bu ko ràbbee ni ba teg su la neexee nga fekk ci wayam yi jël benn bayti ba pare teggi teg beneen maanaam ba mu jiital moom nga teggi ko tegaat ci beneen te tëriwul wax ji dana jub ñaari satar yi boo jëlee benn bi teggi tegaat fële jëlaat beneen bi teggi fële sa tëriwul wax ji dana jub ngir maanaam mën a wayam maanaam benn bayti rek laa ci seppi ci lim njëkk a way wahab la naa karaman zaadan yu naa diyaara hibbika qabla bi wal harami xolal ba mu ne waxab la naa karaman maanaam su ko neexoon donte boppam lay ñaanal su ko neexoon mu ne yuballiqu ni taway du yàqu yu yuballiqu naa bu ko neexee mu wax ko bu ko neexee mu ne yu yuballiqu ni taway du yàqu te loolu nettali nañ ne ba mu koy way booba mu ngi jàng alquran maanaam cinq sax la am booba kon ñu xam ne kii mbir mi maanaam moom moo ko yor ci loxoom te niru gim niru yonent bi am na nag ñu jóg di wax ne maam Khalifa maanaam niru gim niru yonent bi am na ci àdduna bi feneen dégg naa sax ñu tudd ba tudd Mourtani waaye boo demee kan nekk Mourtani weddi wu ma ko de waaye xam na lu mu desal lu maam Khalifa am te moom amu ko ñooña nag di wax wax yooyu Cheikh Ahmed Soukayru Ju moom moo leen tontu moo ne moom moo wax maam Khalifa ne ko tax saaka usdul xaabi fii ajaamiha wa ara haso daka mislal ka kal bi haawi mu ne gis naa ne yow maam xalifa gaynde goo xamee dafa nekk ci gaj yi di boot ay doomam bu dajee woon ak yow ñimewul la waaye gis naa ne ñi la xañaane dañoo mel ne xaj bu regreer rek ndax mbir mi yaa ko yor te xoolal si amee sukkari ju ni meloon maam xalifa boo demee ci yonentu sallallahu alayhi wa ñetti barab ci la borom xam-xam yi wutee ne ci la juddoo boo ñëwee ci maam xalifa ñetti barab ndax Selig dem naa fa bu yàggul maanaam ñetti ñaari barab nee nañ fa maam xalifa fii la juddoo ba pare am ñu waxaat ne mbàmbu la juddoo yeneen tu juddoo màkka gàddaay fa dem Medinatul Munawara maam xalifa juddoo Selig jugee fa dem Kaolack yeneen tu bi mu demee Medinatul Munawara maanaam biñ ko dalalee jàkkaam ja nettali nañ ci siira ne Aboubacar moo jëndoon pàkk boobu maanaam maam xalifa tey boo ñëwee fi ñu samp jumaam jii maanaam taawam bu baax bee di alaaji mu ndaw di tudd alhaaji Abdoulaye moom moo ko te Aboubacar dañoo réeree turam mais am na ñu ne Abdourahman la tudd am ñu ne Abdoulaye kon gis nga la nekkoon Madinatul Munawwara moo ñëwaat fii ba tey yeneentu jàkkaam ja jim tabaxoon ñëpp xam nañu duune ba léegi ni moo nekk Madinatul Munawwara dañ koy yeesalaat defaraat ko bañ koy yeesalaat defaraat dafa dugalaale ay xabru maam xalifa jumaam ji bañ ko tojee di ko yeesalaat dafa dugalaat xabu kon nga xam ne li ñuy wax ne mbir mi moo ko téye ci loxoom loolu lu wér la maam xalifa daal ci gàttal tënk bi ma ci tënk mooy maanaam ñàkk sens gi ñàkk sens bëri ko ndax maanaam ci wàllum wilaaya wàllum lijaaba wàllum xam-xam amul jënn jëmm jooy teg moom ne maanaam kii moom maam xalifa ñoo yem ci côté bii munul nekk koo xamee boo daan ñaan sax yow boo juumee da nga wax nit ñi ne leen kafaara leen ko ndax yàlla ko ba yàlla yàkkamti na maam xalifa xam nga ci jamono am na sax ndeysaan dëkk xam nga jamono dafa sensé léegi mais ci njëkk ci njëlbeen nit ñi kenn ku nekk rek la nga hittiyaan moom ngay ñaan am na dëkk boo xamee sax dañoo waxoon ne waa xalifa daal am digg yu ñuy ñegee rek tey dégg dëkk ba ba léegi digg rek dëgg rek mu ne ah yellanti ko mu ñëwaat fi ba fekk leen fa ñu ñaan ko leneen ñu ñaan ko leneen kon nga gis ne maam xalifa moom mooy solution àdduna bi gis nga bind na ci téere mën ma gis mu waxoon ne beneen àdduna bu bees dina am booba réseaux soso amagul de moo tax yawmal qiyaam nii xuta di fi mu toll nii la nga defoon maanaam daaw daaw daawaati jéeg loole noonu dañ la koy tegaal mu nekk ab vaar fekk lii nii maam xalifa bindoon na ko ci téere mi te nee noon àdduna bu bees boobu buy ñëw ëllëg maanaam Amérique moo koy téye ci loxoom. li ci ëpp Amérique la soso moo tax ñun waroon nañoo gëstu kan mooy maam Khalifa gëstu ay tiireem seet bu baax jër ay mbindam première yi ñu koy jox yëpp maam Khalifa joxoon na ko boppam maanaam nee na woon inaman yabu yi si baaxal li sax wi fi yi muxtaari aye jahuli mu ne ku xam ak dof wala ak réer bay tëkkalante sa bopp ak man ci tagg yonent bi duma ma sa morom waxoon na Seydina Cheikh ne ko fii amoo deuxième man du am deuxième te Seydina Cheikh amul deuxième yonent bi mu ne ko fii amoo deuxième man du ma am deuxième yonent amul deuxième kon nga xam ne kon dafa boolante ñaari xilaafa téye ko ci loxo moom maam xalif kon daal xam naa ni loolu lay ubbee ci moom maanaam réeré gi nga xamee daal moom la ko moom lañ ko réeré loolu daal bokk na ci li nga xamee mooy suñu ñàkk saas ñun. maam Khalifa daal mooy solution wu jamono te euh, dikk na ci bu baax a baax a baax Cheikh Ibrahima dañuy dugg ci yow rek euh, wax la wax laaj la Cheikh Ibrahima fan la jànge euh, ak instant bi ban responsabilité lay occupé ci dëkk bi wala te Ndofane. sama wàllu njàng nag man maa ngi jàngee dalee jàng dëkk bu ñaan sëñ ci Amath Fall. ci benn sëriñ daara bu ñuy wax Kébu Jóob waaye nag yàgguma fa benn at rek laa fa def li ci des maa ngi ko jàngee fii su suñu dëkk kon mën naa wax ne daanaka li ëpp lu ma am fii suñu dëkk la ndax njëlbeen gi foofu la xanaa bu ma jàngee alxuraan ba pare suñu dëkk bii laa commencé jàng xam-xam ba jàng fii ragal naa ñeenti téere door a dem Tayba mbayan nag daanaka mom lima jang yep yëpp Taïba Mbayeen laa ko jàngee jaar na na ci yeneen dara waye boba danaka téré yi yor rek la fa motali danaka kon man na wa dal diggante ñett yi dal fi la jaar ci côté jang amna yeneen jaar kaolax jaar na timit def ben at ci oustaz Babacar Thiam ci dara bo xamé Serigne Hadi moko mom moom dal moy sama parmela su njàng euh, dañuy lay laaj rek sa diggante Cheikh mohamadul Hadi euh, yaakaar naa ne diggante bu yàgg la bu rafet Euh, te yaakaar naa ne sax am na ci ba dem defal nañ la ci li euh, lijaasa nga dikkal ñu rek ci loolu nan la demee ak ci yan contexte lañ la lijaasale bala maa ñëw ci sëñ Hady ma am ci leneen lu ma ñëw ci wàllu maanaam fi ma jaar ba yegg si moom ci bëgg gi ma bëgg maam xalifa maanaam dama mas a dem benn daayira boo xamee du daayira ab kër maam xalif nekk fa ba deux di du ma ñibbisi bi ma tëddee ma gént maam alaaji ñëw ak maam xalifa ak keneen ci doomam yi ñoom ñett ñëpp maa ngi leen di gis ci gént gi bu ko defee am ku wax ne diw mii de sama taalibe la maam xalifa ne ko xawma keneen koy wax waaye du kii moom kii moom sama taalibe xaqal la ku kenn mënul sensé kon lolu nonu manam gentu ko luma ma la ndekete gentu gu lu beuri lumi junji moy dajje gi ma wara dajje fi ak seigne hadi ndax man mam Khalifa dama ko beug torop te benen bi ci des moy dama gis lu waral ñu war ko beug mam Khalifa serigne la bo xamee ci jamono bala ma ñew rek ci sama digeene seigne ah dama bëgg de ben parenthèse touti ci mam Khalifa. maanaam gis nga këru diineem gi ñun lew na amul dara loo fa mën a xool joxoñ ko ne lii nit ñaa ngi koy def bokku ci lislaam bi sens boobu rek lañ foofu rek lañu rawee fépp sens boobu bañ nañ ko ba boo bëggoon a sos wala nga bëgg a def loo xam ne mi ngi wutoo ñun la la fay génne doo ko xam kon li ma waxoon ci ginnaaw ne maam Khalifa moom mooy solution bi loolu day day daal di ñëwaat maanaam nag foofu faa ma defaat beneen parenthèse ci li ma waxoon ci wàllu solution ndax bëri na loo xam ne leeralu ma ko ci xam nga nag Sénégal dafa doon réew moo xamee ku xëppale ay micro làmb la joo xam ne dañuy tëgg làmb joo xam ne ku xëppale ay micro yaay daan mais duñ seen mbër mi mën a bëri mbër mi dàq bëri duñ ko sedd maam dañuy seet mbër mi dàq wax gis nga maam Khalifa keroog bi ŋàññee na Seex biñ ŋàññee Seydina Cheikh fi ci aduna dum ma wax ne rek mbëri Sénégal yi rek ñu fi woon de mais yeneen mbër a ngi fi woon mbër yëpp ñu ngi fi woon waa lan moo tax kenn jugut bàkku yëgal ne nag maanaam am na ñeneen ñu jug bàkku ba bind ay téere waaye amule yu siiwut li waral siiwut mooy biñ ko joxee ki nga xamee moo bàkkoon daf amu xam-xam waxi ngeen wax ba da ngeen may mi yéen indi gu benn preuve buy wanee man li ma weddi gis nga mag ñu baax ñi fi nekkoon ñi ci ëpp bu ñu leen laajee ndax man ngeen tontam déet xam nga li ñu waxam xalifaa ñu si doy moo tax bi mu tontee rek maanaam ki nga xamee moom la tontu dafa reconnaître ne kii nii dëgg-dëgg mooy borom xam-xam bi ba moom tey bu nekkaatoon kuy wuti xam-xam di jàng maanaam ci moom xalifa lay jàng si te professeur la woon ci réewu arabe yi kon benn ngi noonu beneen bi ci des mooy maanaam guerre de deuxième guerre mondiale bi ñëwee laaj maam Khalifa daf ciy bind. wane ne maanaam guerre mondiale bii daj na àdduna bi yow yàlla xam nga maam Khalifa ba mu koy ñaan fan la jaaree ci baatab latif baatab latif ci la jaar ñaan yàlla guerre mondiale bi daal di tas. beneen bi ci ñëw beneen bi fi desaat bu ñetteel bi nga xam ne mën naa tukkal àdduna muy mbiram coronavirus bi toujours ma faral di ko nettali xale yi may jàngal ma ne leen waroon ngeen a jéem a faxe bind wala ñun ñu jéem ba faxe bind wane ne coronavirus bii fii ci Sénégal de lew naa ko fi jeexal ndax bu ko doonul rek bu ëllëgee ñun suñuy sët danay ñëw wax ne keneen moo ko fi jeexal demagut fenn rek jamono bii rek ñu ngi bind ñu bëree ngi bind diwa fi jeexal corona bi diwa fi jeexal corona bi te pourtant jumaa yi bañ leen tëjee jumaa yi lew na ñoo njëkk ubbi te sax ubu ñun kon ñoom ñoo fi jeexal corona bi ñun yàlla daf ñoo may sens boobu kon li maam xalifa doon wax ci xeeti secret yi nga xamee moom la làq maanaam ku dem ba taxaw ne maanaam man xam naa mbuut moo xamee su ma ko wane woon ci àdduna jaamu xaram jeex fi maam Khalifa nee na moom am na tur yàlla boo xamee moom su ko wane woon maanaam jaamu xëram jeex fi jëlee na sax mbiram taalibi de mais nit dootul teg dara di ko jaamu lu dul yàlla. kon gis nga maanaam te lii lu mu bind la ci ay mbindam du lu ma sos. dalee ko ca bayti ba indi mina seyx maa law kaana yaarifu ahlul bilaadi ataw ni doona tax mii ndax wa awdaa al qalba siran law abuhu bihi lam yabqa soo wasanin ila ala dini kon loolu leer la moo tax nekk taalibeem ak a nekk sens maam xalifa nee na sama taalibi sama taalibi yi xam nañ ci Seydina Seex loo xam ne xut bu topp na ko xamu ko waxut wàllu yu de maanaam nee na xut bu topp na Seydina Seex taalibeem am ci Seydina Seex loo xam ne xut bu samaan xamu ko te nit ñi est xam nañ lan mooy xutbu xutbu benn lay doon ci jamono di maam di doxal mbir yëpp te maam xalifa nee na maanaam moom taalibeem am na ci Seydina Seex loo xam ne xutbu amu ko wa jattum hinda xatmil awliyaa i ruttaban xanaa taqaasara aqtaabun laha minanun du la ma sos ci xeeti secret li ci maam xalifa xamoon wallaay bu fekkoon ne xëy luñ a feeñal la xawaa mina siri asraaran mukatamatan wa min jawaahiri xilmin maa laha hamaltumuhu minal asrari ma hajasat han hamliha rasiyatu summi wa sufal maanaam nee na li ma làq ci ay secret yoo xam ne dama ko nëbb ak ay wurusi xam-xam yoo xam ne amul njëkk mu ne lu ko waral nag mooy maanaam dañ maa yenn ay xeeti secret yoo xam ne maanaam montagne yi sax attanuñ ko maanaam gaal yi sax attanuñ ko moo tax mune manam ci kasi seex ya lima la wax ne la mo yor sidu khilafa day ñewat wa min safa iku aussi seyxi masrabuna naa asqaawu usqi siyaab ya xaysu maa xattanu moo kuko sori yëpp ci yam ndegam taalibe mam khalifa nga fo meuna jaar ci kasi seex le leer yi fa ngay nané ba paré nak doora wax ne tara sakra min mahabbatim lahum min asri nahlun ba'du xattanu manam wane ne taalibeem gis day mandi lol ci bëgg yonentu sallallahu alayhi wa sallam day màndi lool ci bëgg sëti yonentu bi waaye day màndi lool ci bëgg maanaam sahabaay yonentu waaye day mandi lool ci bëgg lu baax moo tax taalibe maam xalifa bu bëggoon bon sax du ko mën néew na de nga dem ci fu ñuy defee ak mbon gis euh, photo wala nga gis ñu tudd aw tur muy maam xalifa du ma ne xamul de waaye gisuguma ko man mas ngeen a dox ba gis ku téye bitéelub sàngara ñu ne kii kan la ñu ne taalibeeb Xalifa Ñas la gisaguma ko man tegaguma ko bët mas dox ba dégg maanaam fu ñuy fooye ba tudd turu Xalifa mu ko mënuñu ko ndax taalibeeb maam Xalifa dafay am ak tarbiya gu nekk ci moom ak yar gu nekk ci moom ba lu bari ci mbon da koy yomb da koy jomb moo tax sëriñ la boo xamee naxut ay taalibeem de te sens beneen bi ñu am mooy lu bari dama koy faral di wax ñeseen yi ak yi ñeseen yi bu ñu doonul tijaan kan mooy tijaan ci àdduna bi xamut ñeseen bu nekkul tijaan tijaan amut ci àdduna bi man maa ko wax moo tax mu ne fa aqisul wirdi ani min xasaa isi kama ani seyqi ja adu biil minanu ñun liñ jàpp dañ koo xam te dañ cee teg suñu bët gis ko maam xalifa nee na maanaam ku jël wirdo ci man bokk na ci lii jagle yi nga xam ne na Cheikh waxul sax benn jagle de mais daf ne jagle yi ma Cheikh jagleel bëri na lool mais bokk na ci bokk na ci kon nga dégg ne am na leneen maanaam mu ne bokk na ci ku jël wirdo ci man ci na seex nga jëlee direkt ndax sahaatu minhu umuran la uabiruha ndax yakillu ndax darki al fahamatu wal fitan xalifa moo tax daan na tàggu ba ci kanam mu wax benn langue boo xamee maanaam kenn du ko xam ndax nee na moom laq na xeeti mbir yoo xam ne jëlee na ko Seydina Cheikh maanaam bu ko waxee yow mi am xel am jégg maanaam doo xam moom li muy wax ndax lan xel lott na ci xam ko moo tax daan na toog ak njabootam ba ci kanam muy làkk-làkk boo xam ne nit ñi duñ ko xam bi mu demee Fuuta ñu koy jottali mu waa waxam juré ja ne ndox mi dana yegg si ba fii bu ko defee ki koy jottali ngir ma ndeysaan mu ne waaw nee na ndox mi dana yegg si feneen dana ne yegg si barab sàngam Am xalifa nako waxal lima wax man bu la lang yeb la dik kon serigne la bo xamé naxul ay talibé té dama koy faral di wax ñu bari dañu digaté waye mom fa joxé ñu bari dañu digaté mais mam daf ñoo jox doora dem serigne buñ koy top moy lan gis né moo ñu gën bu ëllëgé ñu yaakar ci lan aljana mom nak daf ñoo wan ñu tek ci bëtt nit toog na fii ne sàngoo naa maam xalifa yoo dootu ko màtt yooyu sax dañuy dégg ndigalam beneen bi ci des mooy am na taalibeem boo xamee bu daan natt moom maanaam ndax mu ne maam xalifa moom man ñeneen ñi maanaam boo ne ko yow sama sëriñ sa ko man mu ne kaay lu koy findeel mooy xoo soxnaam su ndaw si ba mu ñëw mu ne ko booyalal ma safara mu booyal ko ba mu booy mu jël tànkam yi teg ci ne képp koo xamee sa sëriñ man na li sama sëriñ man ñëwal jël sa tànk yi mais daf ñoo wan boppam kon taalibe maam xalifa sens sens la sens la du mérite sens la moo tax léegoo la nga gis yàlla dugal ci baay génne ci doom léegoo la nga gis mu dugal ci doom génne ci baay moo tax mu ne woon sama gaal gi de lim sëf kenn du ci dem safara loolu nag xam nga li koy firndeel benn góor yàlla boo xamee dëkkul ci réew mi moo tëdd gént ko leen déedéet kii nit yàlla la ma dem ba fekk ko fi mu loon dal ak kër balaay ma tuuti sorewuñ ma ñëw fekk ko mu toog ma jox ko loxo nuyuwante mu waxtaan ak moom mu xamal ma ne ma yàlla moo ma nëbb say samay maanaam yàlla moo la nëbb samay ayib mais du ma nit yàlla ma xam ne ko nit yàlla xoolal jooju wax ju moom ci boppam moo li ne maanaam jibril moo ne ko cas ci biir gént xenu ko jaarale ko ci bépp pays nit yàlla waaye ba ma àggsee Léona dana ko gis nga Xalifa Ñas ak mbooloo mii kenn du ci lakk loolu ban sens ko gën a rëy ban sens moo gën a rëy loolu su ñaari nag laaj nga ma biñ dajee man ak moom daan suñ ànd man ak moom mooy dama doon jàngal benn taalibi ba alaay Omar Ñas ñu koy wax Ñas mu ngi dëkk Gàmbi mu koy jàngal téere bu ñu tuddee laamiyatul afal mu dem sëñ xaari di ko laaj muy tontu sëñ xaari di ko laaj muy tontu mu ne ku lay jàngal mu ne ko diw mu ne ko demal xool ma diw heure bi waxtu suus heure bi waxtu une heure yi mu ñëw fekk ma maa ngi toog di joxe dars mu ne ma wuyu sëñ aadi ma ne ko ngaa juum mu ne ma noonu wuyu sëñ aadi keroog wér hôpital laa war ba may dem ma ñëwee fekk sëriñ bi toog mu ne ma yaa jàngal diw mu ne ko waaw maa koy jàngal de mu laaj ma yan téere ngay jàngale ma laaj ko mu ne ma yan téere ngay jàng ma ne ko léegi tey ma jeexal ibnu balaa balaaxa tamit léegi tey ma jeexal ko xaaroo tamit commencé naa ko waaye njàng mi xaw naa jafe ndax fii du ma demee léegoo léeg ñu jàngal ma léegoo léeg du ñu ma jàngal munoo bis ni ki tey maa lay fayal njàng maa lay jëndal téere maa la gàddul lépp te sama daara laa lay yóbbu loolu mooy sun sababu xamante man ak sëriñ bi bi xamantee foofu nag ci la ma yóbbu daaraam Kaffrine benn bis ma ñëw toog mun ne ma Ibrahima may naa mu a ma yow yeeyoo nga ijaasa ci tariixa seex ak ma xam ne man ni ma mel xam ne xuma ci xeeti xam-xam ci xeeti lu ñuy nawee nit yàlla xuma ci dara mais sëriñ Hadi moo yéeme mu ne ma Ibrahima ne naa mu ne ma yow yeeyoo nga ijaasa ci tariixa seex ma ne ko déet waaye sëriñ bi booba ga euh, lan la siyaare xam nga siyaare lu gën a bëri mois de mars lay am ma taafantalu ba dem ñibbi. siyaarewaat ba gàmm ma ñëwaat mu ne ma së euh, euh, Ibrahima ma ne naa mu ne ma li ma la waxoon fàttiwu ma ko mu ndekete moom préparé na ijaasa bi ca Dakar dugalaale ko ci mu wax bëkk néeg bi ne ko dama indi ijaasa Ibrahima bi jël tamponeem teg ci te li ma gën a neex ci ijaasa bi maanaam bisab gàmmu la yoor yoor la altine la ci la ma ko door a jox ba gis naa ñu bari ñu koy wax mu ne leen dem leen ci Ibrahima boole na ma ak ay nit ñu bari moom sëñ aadi ma xam ne nag moom mën naa am nag moom mooy gis ndax sëriñ moom sëriñ bu mat sëriñ day tëdd fii di gis loo xamante ni lu ko distancé la firnde bi ma ci indi rek mooy sëriñ aadi li tax ma gën koo jàpp man du ma jàppee nit noonu dama koy natt loolu sëriñ aadi waruma koo nat waaye man damay nat que sëñ aadi liggéey bu ñu mës a séq man ak ma seedeel ko tey nit yi nit ñëpp Sénégal nga sëñ aadi li nekk ca mag ña da koo donn su nga kas fu gi ñoon wax ci maam Khalifa sëñ aadi ku ko ëppale gisuma ko ñetti yoon yu ma sant liggéey saa bu liggéey bi sottee au lieu que man ma xoo ko de mais liggéey bi ki nga xamante ni moom moo ma siy dimbale ba jox ma xaalis bi saa su ma ko joxee rek suba teel goog sëñ aadi dana ma woo ne ma liggéey bi ma la waxoon gis bi ma njëkk a def postu kat ay daf ne ma pintiral jumaa ji ma ne ko sëñ bi lu may pintiral jumaa ji man damaa xam sax 1000 francs ma ne ma Ibrahima ma ne naa mu ne ma sëñ sama ndigal laa ko waxee de ma ne ko waa baax na keroog bi mbir mi sottee mu woo ma ne ma mbir mi fu mu tolloon ma ne ko sotti na tey mu santaan ma beneen liggéey postu kër ayib encore maanaam ma ma mbir mi sottiwaat keroog mi ma fekk ci conférence kën nga Ngada waa ji nga xam ne moo war a defar liggéey bi mu ngi ma woo 19 ay côté 30 yooyu maanaam bi mu kuppee appelu sëñ aadee dugg mu ne ma mbir mi fu mu toll ma ne ko waa ji ma nga xame moo sottal mbir mi fa coupé léegi rek yaa nga woote kon sëriñ la boo xamee bu mat sëriñ la bu ci mujj mooy liggéeyam dufaan bi fa xëy setteer xooma ne ma fu mbir mi toll ma ne ko sotti na démb kon sëriñ la boo xamee wax dëgg sëriñ bu mat sëriñ la kon wax dëgg dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax liggéey yu joxagum nag yëpp ñu ngi ciy góorgóorlu moom dafa am ak mbaaxam rek ba fu mu dem moom jikkoom lay jël ak jàngal ma waaye doonte suñu yéene nag ëpp na wax dëgg luñ koy liggéeyal wax dëgg sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax ay procès yëpp yàlla yàlla sottal ko jaay rasulillah sallallahu wax ne moom ku sopp maam xalifa la waaye tamit dugg ci digganteem ak Cheikh Mouhamadul Haadi na yal na yàlla sàmm yal na yàlla yàggal diggante bi ko liggéey waaye nag wax dëgg ñun suñu waa dëkk toujours ma leen koy wax ma ne lépp lu ma fi defalati nit du lu ma ko lebal mais lu ma ko fay la amul jënn jëmm jooy seet sëñ ci Mamoune Ndoumbé du mag du ndaw du góor du jigéen lu dul rek def defam ñëw na ci man kon sant nañ leen bu baax a baax gërëm nañ leen bu baax a baax gërëmaande googu nag ak sant googu dañ koy teg ci loxool sëñ daara Cheikh Modou mii daf ma mas a wax genn kaddu go xey musuma ko wax dana Ibrahima naam mu ne ma xaalis bu bëri de manam yimun ma ci yaw manam xam nga luma bëgg nga am ndam mu ne ma loo xam ci ndam man xeeb ko ma lo xam ci ndam yaw man xeeb ma xamne ne mbax la kaddu go luma marqué la lo xam ci ndam rek man ndax yow sa ndam mooy sama ndam ñu xam ñu nag ci ànd boo xamee bu rafet la te ànd la boo xamee moom daan na ma ko faral di wax booba gën nañoo nekk ndaw ñu ngi moom mi ngi jàngee tay ba xam nga bu ñëwaat lu may wax Ibrahima ma ne naa mu ne ma booba sax xamuñ ne lii yëpp dana sasu mais danaa may woo ba ma ñëw mun ne ma ñun ñaar ñoom mën a ànd ma ne ko ah mun a ma jamono bi bu ñu àndee yàllaay tax parce que yow xamoo lu ma yéem man xamoo lu la yéem te boobu ay taalibi lañ waaye gis nga li yàlla def ba tey ànd googu muy continuer waa tey ba tamit sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax ndax wax dëgg ñoom it nañ suñu carrière bu baax bah baax a baax beneen bi ci des mooy da ngay gis ku jugee tey am benn ñëw bu ñëwee jox la ñaari lox te dëkk boo fa nga jàngee moom it mënoo yëm sant nañ sëriñ sa bu baax bah. baax gërëm leen bu baax bah. baax wax dëgg suñu waa dëkk moom man uma seen fay nit bala laa nit ñee téye faaw say mbokk ñoo lay téye waaye suñ dëkk moom wax dëgg téye nañ ma dañ may defal loo xamee sax sama jëmm ji yeewut ko sama xam-xam àggu fa sama jëmm yellawut ko dama koy faral di wax nag lu bëree bëri dafa am yenn xeeti nit mbaax yoqaay bu la ko nit defalee bu fekkee doyul la buñ la yéegaloon ba ci kaw asamaan ju njëkk nga ne jàll na ma si asamaan ñaar doo doyal su fekkee yow ñi la mag fuuf ñoom ngay fekk ñu toog ci siis ñu wàcc jox la bu la nuyu nuyoo la ñaari loxo lañ am seen poos ñu di la ko jox te xam sa démb xam sa tey xeetu mbaax yooyu kuñ ko defal ku ne boo doyulut boo léegi bu ñu la yéegaloon ci kaw asamaan nga ne jàll leen ma wax dëgg sant nañ leen bu baax gërëm nañeen bu baax seen sit bii nag wax dëgg ñu ngi leen di ñaanal yàlla gis nañ bu baax a baax liggéey bi ma njëkkee gis ab liem rek dama ne groupe bi moom faa ma dugg ci parce xam naa bu baax taxawaay bi Abdoulaye Diouf mii wax deug sant nañ la bu baax gëreem nañ la bu baax gis nañ taxaway bi toujours ma di ko wax ma ne ko gis nga liggéey mom khalifa bi nga nek amu tanki gannaaw de kanam rak ca kanam rak ca kaw ca kanam rak te inshallah ñi ngi ñaan yalla yalla na dem ba nek ab télé tewul yalla lu néew la tax ci nguro yalla gi te yalla man na ko te am na yaakaar ne yalla dana ko def wa lima lima gëna neex ci sen site bi mo ñuko sekk ñep ay talibi lañ ñuko sekk ñep ñu baax lañ ñu ko seq ñépp ñu yaru lañ foo leen gis dañ la jox xorma te foo leen gis danañ jox kilifa xorma te sit la boo xamee wax dëgg musuma ciy gis lu may ŋàññi man groupe whatsapp am bokk naa ci laa Diouf toujours doo koy répété bu ngeen fi dugal politique bu fi dugal nangam bu fi dugal nangam diine rek lu dul diine bu ko fi dugal kon wax dëgg sit la boo xamee bu am solo la ci àdduna bi waaye rawatina nag suñ kër gii di lew lañu seen yeggale ngeen ko foo xamee def ngeen ci liggéey boo xamee yàlla rek ko xam yàlla rek am fayam yàlla na leen ko fay bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp bu baax a baax wa aqiru daxawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ana an alhamdulilahi rabbil alamin euh, am nañ solo bu baax am nañ mbégte bu baax ñëw fii def déplacement ñëw fekk si la fii ngay boroom xam-xam bu yàlla sellal ngay nëbbatu nag waaye ñun xam nañ di la ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi yàlla yokk fan bi yàlla yokk maqaama yi ci jaay ci barkeeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax mbokk internet yi rek ñu ngi ci fin émission spéciale tabaski àndan si woon ak Cheikh Ibrahima Mbaye ci PMTV yéen ñuy suivre ci Facebook ak YouTube donc di gën a leen ñaax rek ngeen abonné ci chaîne bi di chaîne la les chaînes euh, chaîne serviteur Maam Khalifa Niass di wax rek euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa